Sénégal nuyu naa leen man la Cheikh Thiam ambassadeur tey dama ñëw ak yéen ci benn vidéo nekk ni ci sama yoonu liggéeyukaay war a dem liggéey mais ma muñ ko muñ mënuma ko muñ te force ma génne ko ma bëgg cee partagé ak yéen may ñaan képp koo xam ne dëkk nga Touba wala nga bokk ci yoonu Mouride. ndax vidéo yi ma daan def dafa concerné won ñi nga xamni Touba lañu dëkk mais li may wax ni dafa concerné képp ku bok ci yoonu mourid rek wala nga bëgg Serigne Touba wala nga am yaakar ci mom ci lenn wala nga bëgg participer ci luy gëna doxal yoonam bi ma ngi lay ñaan nga déglu ma attentivement manam nga déglu ma tekk ak tey ngeen dégloo ma xel ak xol ñaar yépp la soxla ngeen dégloo ma parce que limay wax luma ñor la dama bëgg mu dal nu mu gën a dalee rek parce que nee nañu video yi may def souvent day tàng day métti xëy na li nekk ci sama biir xool moo tax mais lépp lu ma ci wax rek pour ñu jariñoo la parce que dama xam borom lim fi bàyyi ak lim programmé woon ak fañ ko nar a jëmee mu bari ay complot yoo xam ne nag dafa lalu tege ci kawam complot yooyu nag ci laa leen bëgg a dugal ñëpp xam nañu ni Sénégal population bi complot la tarixa yi comploté ak état du Sénégal pour dund ci askan bi ndax lan mag ñooñu muy Serigne Touba aladji malik Limaamu ñass dafa am ay projet yu ñu tégon ak processus yu ñu défon suñu réew wara dem ca kanam ci walu dundin gu jag ci walu nit ku yiw loolu rek mo nekkon seen ay projet senegal am tangé ñuy dund diiné bu set nit ñi kenn ku ne yem fa nga war a yem def la nga war a def naa fekk jëw finiste rambaaj fen sàcc du am loolu moo nekkoon seen ay projet liggéey nañ ko ci liggéey nañ ci ba yàlla jagleel askan bi ëpp Sénégal ñoom la ñuy déglu comme suñu politique yi xam nañu ni askan bi sëriñ si lañuy déglu sëriñ si ñoom it maanaam ñooñu seen i ndono xam ni ñoom seen maam a tax ñun ñu topp leen au lieu ñu nek ay contre pouvoir waroon ñoo mëna xirtal ñun ci luy jëmele réew mi kanam non ñom dañ ko dajalé muy dañoo naan suñu yuri fexé ba ñom rek lañuy ñu def ñu ben genre troupeau de bataille de bétail manam nek mel ñun gëtt lañ pour ñom et politiciens yi comme politiciens momit mbolo ak nit dongo ko ñox ñor ñomit ñu xamni sëriñ si ñun ay xar lañ pour ñom ñomit ñuy dem di ñu ak sëriñ si moy tarixa yépp la yémalé ah. loolu moom mooy complot bi nga xam dañ koo teg ci suñu kaw ñun askan bi muy sëriñ si ak politicien du Sénégal léegi nag complot boobu dafa am ay complot ci biir ba pare am am ay victimes comme man géographiquement fi ma dëkk ak tarixa bi ma bokk ak fi ma dëkk falaa mën a maîtriser moo tax may wax souvent ci Touba te damaa jàpp ni ñii ñi nga xam ne bokk nañ ci yoon wi te am xam-xam wala ñi koy jiite bu ñu amoon xel tuuti tuuti tuuti tuuti dinañ comprendre li may xam ne damay damay damay defar mais yàqu ma complot bobu nga xamni serigne ci politiciens yi complot nañu ko population bi dafa am benn payer les pots cassés Touba ak population. pourquoi parce que ni ji ils vont pas s'en servir doole ji doole la bling bling la briller mais au fond quintessence ba parce que bu doon la wala bastion bi nga xam ne yoon mooy moo fondé yoonu Mouride muy Touba wala bokk fa la base bi nekk kon ñoom dinañ ci jariñoo léegi foofu dafa am ay jafe-jafe yu fa am yu ma bëgg a leeral sëriñ si téye nañu population bi ci xel politiciens yi téye nañu sëriñ si ci xel parce que xam nañu ni yoonu murit bu ñu bàyyee mu am un mu am tuuti académique manam njàng mi su xawee ubbeeku tuuti ñu am niveau intellectuel ben bi fi ak téméri at ki nek président Touba lay joggé lolu politiciens et les les intellectuels du Sénégal xam nañu ko té ñom ñëpp duñu ay mourid ta xam nañu ni Seigne Touba liggéey na liggéey bo xam ne yoonu murit rek warna mëna développer Afrique waxuma la Sénégal warna ko mëna a té lolu sax mo wara mëna am mais ñom comme xam nañu loolu ñoom politiciens yi dañuy duñu bëgg lolu am motax dañuy créer dañuy yak bourgeoisie bi am bir Touba yak bourgeoisie bi appauvrir la population non maraboutique de Touba dañ leen di ndollo buñ leen parce que xam nañu ni suñu ñun ak sëriñ si ñun japp nañu dañoo wara ndol dundal sëriñ ci ñoom li indi muy suñu ak suñu ci réew mi war ko indi Touba mu ñu dañ koy jox ko sëriñ ñu créer décalage de pauvreté dañuy affaiblir population non maraboutique bu Touba xam nañu ne bu ñu demee ba pauvreté gi ag à l'extrême population bi dinañ jóg dal ci kaw serigne si fi nek dañuy jóg duma leen loolu yàggatul moo tax dem bi ma Bass Abdou Khadre ni président Macky Sall mu ngi fiy ñëw di gan la gan la président la war nañ ko jox war ma mais nag président de la république serigne bi moy ki yilif rew mi mom la jox baatu réew mi moom la ñuy jox baar bi nga xam ne mooy conduire réew mi et loolu même ci alxuraan da cee am képp ku la jiite soo amee lu la naqari ci façon bi mu la jiitee su nekkente ni sa dund jagul ci façon bi mu la jiitee war ngaa mën a def mouvement maanaam war ngaa mën a yëngatu ñaxtu wax ko ko ci façon ci façon bi mu gën a teggi ne ndax punkal bu toogee ci sa kaw boo ankuwul du xam ne toogaay bi métti na loolu àq ak yelleefu doomu aadama moo ko may ci diine yëpp da cee am léegi yéen noot ngeen ñu ba ñun sañu ñooy sëqat ndonte ay frustration naqar am na ci dëkk bi ndax bu ñu waxee ngeen indi seen turu maam teg bañ gëm nañ ko gëm goo xam ne du ñu manifesté wu léegi président Macky Sall bi war a ñëw faj si ñuy soxla ñun ngeen nit ñi ngeen ñu ni bu leen manifesté wu léegi moom pour mu bañ a xam daal ñun suñu ay problème <laughs> non c'est du jamais vu i mooy li may nii maanaam jàppu njàmm maanaam jàpp njaam gu leer a leer a leer a leer mënut li ma ci gën a metti mooy maanaam porte parole yoonu murit maanaam amul benn murit wala benn sëtu Serigne Touba wala sëtu Maam Jaara Buso wala sëtu Sëñ Masamba ku ku ku am capacité wu mën ko doon mais kii saa yu waxee wax toj toj ay man su waxee ba pare ay noppi picc laay yore parce que man ay waxi picc laay dégg xëy na man maa am défaut boobu. koo xam ne tëkkuwaatee ay ku fi manifester doo fekke màggal géeg ay ku jaar ci gaal yi dem boo dee sawara nga jëm mais yéen kon ay maanaam de rey nit rek ngeen mën ak yóbbu nit ñi sawara mais génn nit ñi ci mbënd mi moom mënu leen ko utal nit ñi am xëy ak lu ñu lekk amu leen ko mënu leen ko utal nit ñi moyen de transport bu baax ci dëkk bi quatre vingt et unième siècle Touba ay saretu mbaam ñooy quatre de transport bi fam mënu leen koo so demee sama koñ li commencé ay pour mór lay jëm nonu japp wër juma ji jaar nonu jëm gédé fofu xalé yi ay xadar rek lañu xam amuñu fuñ jëm lolou mënu leen ci dara mais man ngeen ray nit ñi avant magal gi man ngeen leen yobbu sawara buñu dé ci bir gal yi mais il faut arrêter les seigne touba mérito wut li seigne touba mérito wut li yéen ngi fexé nit ñi baña manifester wan sen nakar Macky Sall mais Macky Sall mom mi ngi togg seeni duma lolou ma leen ko wax moom avec tous les intellectuels sans exception je dirais je n'ai rien contre président Macky Sall par contre moo ma gënal sax ci opposant yu ma gis mais moom il fait partie de Abdoulaye Wade Macky Sall ak Abdou Diouf ñoom ngi togg duma yulen leen waa population non maraboutique du Touba wara a duma te bis bu jotee bobu ñom duñ jóg di wax yeen yéen ngi fang pour nit ñi wan ko li ñu kon nak wa Touba yéen may jël témoin li moy li ma doon wax li koy leerale ñi ay mbaam la ñu jàppee barki alxuraanu karim mbaam yi daw ci biir dëkk bi takk saret sax ñoo ñoo ñu ëpp valeur parce que ñooy yóbbu nit ñi ñun moom tekkiwuñu dara dara dara ci réew mi. maa ngi bëgg a dugg ci tunnel bi sama réseau day dem fii laay yemale live bi jërë ngeen jëf.